Sy présidente Mimi dañuy jox kàddu comme niñ ko waxee liggéey bi nga xam moom la ñuy def doomu daara am ci responsabilité am ci taxawaay ci kaw loolu may feeñal teewaay imam Khalifa Ndiaye mu ngi fii toog ñu ànd ak ci liggéey bi ñu borom taxawaay ki nga xam ni chaque jeudi mu wax ak Sénégal jàpp waa boor be ci faay leen ci faay yu métti Cheikh Bara asalaamaaleykum waa Agapes asalaamaaleykum waa coalition Diomaye président asalaamaaleykum tous les patriotes Sénégal maa ngi leen di nuyu du wax nag ci nuru turu magi Pastef laa leen di nuyu parce que bokkuma ci doonte nag Ousmane Sonko moom ci magi Pastef la ma bëgg a dugal mais maa bañ maa ngi leen di nuyu ci turu Modab di turu doomu daara yi nga xam ne ñoo nekk Pastef nga xam ne ñooy ñaan ñooy manifester ñooy waxtaan ñooy xutba ci daara yi ñooy xutba ci ñëpp ba yàlla def ñu ràññee leen inspiré tiré daaw ñu ñëw di ànd ak euh, Ousmane Sonko ñi ngi fi toog suñu njiit bi Omar Bamba Diop loolu laay wax di def benn message nag mooy incha allahu koor gi dañuy koor ba noppi di di métti président Macky nag dama ko gis ca dialogue ba mu naan waaye koor ku la ciy mitinal ma ko ñi nga àndal ñoo la dul mitinal waaye ñun dañuy mitinal Sonko ci koor gi waaw léegi da ngeen di wan ne ko sa gaay ñoom duñ la mitinal ci koor waaye ñun suñuy gaay xamee wuñ koor xamee wuñ guddi xamee wuñ kaso Sonko rek deuxième point bi nag doyen Habib laa koy wax président Macky ñu jël sànnam ci Senghor parce que dégg naa ñu ne kan moo njëkk a tas parti ci Sénégal Senghor ñu ne waat kan moo njëkk a ay élection ci Sénégal ñu ne Senghor Macky Sall nag ñëw na tas na parti comme Senghor àndale élection comme Senghor mais élection yi Senghor daan def nag. benn candidat moo daan am muy Senghor kese waaye élection yii Macky Sall def na benn candidat dong moo am muy Diomaye kese waaw kon nag Macky Sall mooy Senghor Macky mooy Senghor Senghor mooy Macky waaw li ci des nag ma di la ko waxaat boobu tata mi ngi laa koy laaj ndax yaa nekkoon premier ministre am dégg naa président dafa jàpp élection yi ñu war a dem élection le 25 février RCI ñëw nekkoon dem élection ak waa Pastef risque la mu jël baatu risque bi lànk ne du ko ko liir naan crise la mais <laughs> defanteeg yéen nag bi ni laaja ah. waaw moo yay ragal ko ne Pastef yi au lieu mu ne risque la mu ñëw naan non crise la mais bi ma ñëwee ak APES laa xam ne vraiment nag risque la dajeeg waaw parce que nag jii iPhone Dubaay moom xaw ma nekk waaye du nelaw tey moom iPhone du nelaw gars yi ci des yëpp duñ nelaw démb nag waxoon naa leen suñu dajee ak APEX ba noppi dama bëgg a noppal yeneen candidat yi liñ naroon a jënde essence nañ ko jënde connexion programme bi ñu wogaal ko li ci des ñu laaj ko te bàyyee ñu terrain démb damaa dem euh, Radisson mais program dañ koy wax di ko wax ba nga sonn yow di koy déglu mais yow programme problème mu Sénégal nga bind sept pass te dañ koy réglé waaw ku koy euh, euh, programme mu Sénégal sept nan la koy réglé ah waay waay nañ ko gaal programme bi da bàyyee ñu terrain bi li may jeexale mooy suñu yaay ak suñu papa yi ak ñi ci gi. ñu ngi dégg rek nga naan Diomaye Diomaye Diomaye su suuru élection yaa boo demee ci bureau de vote bi borom sikkim bi rek borom sikkim bi borom sikkim bi borom sikkim bi borom sikkim bi borom sikkim bi waaw léegi ah, tonton Gra Grace nee ñoo tooñ. mooy tey candidat yëpp dinañ génn RTS ba mu des suñ candidat waa jour passation des services la ñuy fayu du benn candidat fay taxaw muy suñ candidat am na ku ma wax ne ma li ñu def tey dafa ñaaw ma ne baax ah, lu tax mu ne da ngeen dugg kër jàmbur ne leen du ngeen lekk tey du ngeen naan tey am na ñu dul reer biir parcelle parce que iPhone Dubaï balaa yaakaar ci Sénégal fii la njëkk yaakaar soo ko yabal ko jamaay lu jiitu loolu mairie bii ñu boole kaak Jamil Sané ki mënul gagné Jamil ci élection locale nooy gagné candidat wu Sonko ci élection présidentielle kon nag iPhone du ay ñun sax nee nañ Cheikh Bara nee nañu jënd connexion waaye dolli ci iPhone bu baax da vocal sa programme soo mënee jour élection nañ la jot li résultat yi nga tëdd nelaw réew mi Sonko mooy kii ko moom donc nag ñu leen di fàttali di ko waxaat li ñuy def nii yëpp am na solo caravane yi am na solo meeting yi am na solo programme yi am na solo porte à porte lépp am na solo waaye li ci ëpp solo ndax nit soo nee da nga bëgg mu gañe ni nga koy dimbalee mooy jour bi nga xam ni dañuy tànn la ñuy tànn nga fexe sa loxo bokk ci dem leen jëli carte électeur yi carte électeur yi ñu ci sous préfecture ak préfecture yi dem leen ngeen jëli bu ko defee dimanche le mars incha allah suñu xëtee voté suñu ndogoo jubilé incha allah li ci des bareetul dañuy woo suñu yaay ju baax du yaayu démb de kii yaayu tey la te 2021 ba tey ndax keroog bi ñëw na ba fa amee lim fay xew taxaw ci wetam téye ko ne ko